fi ñu nekk nii tey fii la ci ndakaaru précisément fii ci rëbës côté bi nag ñu ngi ko daal di duppee 28 allemand en gras angle corniche waaye saa ñu tuddee rëbës rek xel ca la mu njëkk a dem mooy ci kasob ka rëbës foofee nga xamante ni nag foofu la ñuy daal di denc ñi nga xamante ni nag ñoo wàcc yoon waaye nag turu kaso bi dem na ba daal di accaparé wala daal di nangu turu quartier bi nga xamante ni nag moo ko fa jiitu fuuf di rëbës waaye nag kaso bi dem na ba sax daal di tax saa bu ñu tubbee rëbës rek xel daal di dem ci ni ñi nga xamante ni ñoo fa yeewoo ay délinquant lañu waaye ñoom nee nañ loolu amul benn yoon. quartier bi ñu ngi siy dundee ambiance jàmm ak salaam quartier bi lépp lu ñuy wax si quartier bi amul xëy na lu ñuy nekk suñu wet moo waral sax boo déggee rëbës nga yaakaar lu nee ngi fi dara amu fi. leneen itam loo xamante ni mënees nañu ko wax te ñu fekk ko fi bokk na ci dëkkuwaay bi nga xamante ni moom la ñu fi daal di fekk mu xaw a doy lool ndax kat ay barak la ñu fi daal di fekk waaye itam ay zinc ci la ñi nga xamante ni nag ñoo fi daal di yeewoo daal di dëkk ci anam yu doy waar. ñenn yi dañuy bañ a def restauration ñu la lu tax ngay restaurer te amoo autorisation mais am na ñoo xam ne am nañu moyen bi ñoo xam ne pour restaurer defaraat defaraat kii ak yooyu yëpp ñoom xam nañ ko même Alioune Ndoye sax loolu wax nee na quartier bi fii. def leen li ci war restructurer leen def leen ak yoon allez vous allez rester ici tranquillement avec la sécurité avec la population jeunes yu bëri fii ñu ngi liggéey Dakar euh, mairie Dakar Plateau Alioune Ndoye daf leen recruter pourquoi pour que euh, à seen situation améliorée wu et pour que aussi ñu nekk si dans un climat sain quoi waaw mooy lu ma la wax rek loolu ma la ñoo xam dañuy ñëw fii extérieur ñëw def ci seen connerie après dem waaw ñun nag yenn yi dañuy bëgg a dal seen kaw ñu ne non vous n'êtes pas la loi allez voir les les gens de la loi ils viennent ils font ce qu'ils doivent faire ñoom loolu la ñu wax waaw loolu la mais en en général fii euh, ambiance bi dafa seen fan nga koy xamee bu amee événement ay match de football ay bëre ay kii fii tout day xumb ñi nga xamante ni ñoo fi daal di yeewoo ñu ci ëpp ay étranger lañu maanaam ñi nga xamante ni nag ñu ci ëpp bawuñu fii ci biir réew mi. waaw pël Fuuta yi moom ñoo fi ëpp séeréer yaa ngi fi parce que man mi di wax yow séeréer la olof yaa ngi fi njaago yaa ngi fi joola yaa ngi fi susu yaa ngi fi bon nationalité yëpp a ngi fi nag. Oh, non ñi nekk fii nag ñoom yàgg nañ fi ay génération la yàgg nañ fi dañ fi dëkk nekk bu ñu nekk ak seen famille bu ñu baaxee seen famille. dem ñibbi ñëwaat seen famille ñëwaat bon yàgg nañ fi ba nga xam ne léegi ils sont mélangés avec la population ñoom ce sont des on peut dire ce sont des ils sont ils kooku moom amul sax benn wax bon fii euh, fii nii bon am na pël yi pël yi ñu ngi fi fii bon séeréer yi ñu ngi fi wolof yi ñu ngi fi joolaa yi ñu ngi fi mankaañ yi ñu ngi fi euh, saraxule yi ñu ngi fi waaw genre ñoom ñu ngi fi waaw ñoom ñoom ñu ngi fi mais franchement ah, entente moo fi am. ñi ëpp ci étranger yooyu sax daanaka ña ëpp ay pël lañu ñoom ñi nga xamante ni sax daanaka ña ca ëpp sax fii lañu ñu daal di màggee ba am fi seen ak njaboot ñoom sax ñu ngay wax ni seeni ay wajur itam fii la nekkoon fii ci réewum Sénégal ba ñoom itam ñu daal di fi am li ñu fiy am loolee nekk seen i ay kàddu. juddoo fi màggee fi yaroo fi waaw Guinée laa nag pël Fuuta laa la ndey si baay waaye fii laa juddoo sama papa mu ngi am 1970 la am permis Sénégal xam nga kon <laughs> sama taaw yaay fii juddo waaw kon lu bari ñun ay sénégalais lañ xëy na suñu waajur yaa ñëw fii nag teranga bépp bu ñu am nag Sénégal lañ ko amee ñun doom yi waaye nag waajur yi ñoom teranga bi Guinée lañ ko jëlee indaale ko fi doom yi fi waaw soo soo nee dag soo nee dag diggante Rebeuss Niayes Thioker dañ lay ne pël pël yaa fi jëkk loolu dëgg la <laughs> ndax pël yi bu ñuy lañ <laughs> ñëw waaw kon mënoo leen génnee ci Dakar waaw fii ay pël pël fuute fii lañ jege daanu si yàlla def ñu am fi lépp luñ fi war a am te teg ko nag ci yoon ci jub ci liggéey ci jaamu yàlla soxlawuñu alalu kenn. bokk na ci itam li nga xamante ni nag askan wi yeewoo fii ci rëbës ñu ngi koy daal di ñaxtu mooy ñàkkum kaaraange maanaam insécurité loolee li ko daal di waral bokk na ci ci li ñu wax ci ay kàddu mooy ni dugg bi ak génn bi daal di bëri lool ci seen ak dëkkuwaay bi li ko waral nag lu ci ëpp moo tax ñu daal di nemmeeku ay ñaawteef fii ci biir diwaan bi. koo xamante ne doo xam fan la jóge ba da ngay xëy xëy gis mu dem waaw maanaam ay étranger daal ñoo ci ëpp yoo xam ne doo xam fu ñu jóge yan façon xeet bu ne lay doon te loolu tamit insécurité fa la commencé parce que ki jóge fee ñëw da ngay jëkki-jëkki gis ko di ko gis xamoo nu mu tudd xamoo nan la mel nga jëkki-jëkki mu dem lu mu mun mënti def tamit ci toj toj tamit bu demee mënoo xam foo koy identifier doo xam foo koy wéree loolu daal mooy première insécurité bi nga xamante ne eh, doon na loo xamante ne daal vraiment war ngeen kaa mun a war nañ ko mun a xool. bés lépp lu ñuy wax si quartier bi amul kii xam na lu may wax da ngay dox suba ngoon guddeeg bëccëg ñu ne laal nañu xale bu jigéen si koñ par rapport ak yeneen quartier yi n'est-ce pas loolu laa am lu mu lay wax. insécurité amu fi ndax ñun ñëpp a xamante ku fi ku fi bokkul rek xam nañ la. à part li ma la wax ne ñoo xam ne dañuy jógee ñëw ñëw fii def seen kii def rek yi ñibbi ñoom loolu la ñuy def moo tax police toujours day ñëw def ay ronde xool ñi moo xam ne ñi ne sont pas euh, kii ak avec la loi ñu yóbbu leen vérification. Euh, sécurité waaw sécurité bi mais nag police toujours day ñëw fii waa deuxième arrondissement toujours dañuy def ronde dañuy ñëw dugg fii ñëw dugg lu ñu gis loo xam ne lii daal kii wu ñu def ko mais nag comme li ngeen wax ni sécurité bi ay yenn vol yoo xam ne ñëw nangu sa portable daw ak yooyu de temps en temps am na mais jeunes yi ils sont organisés de telle manière que kuñ fi gis koo xam ne kii bokkoo ci quartier bi wala yooyu dañ lay jàpp. wala ngay doxantu ñu ne la foo jëm wala en tout cas bu ñu la jàppee moom directement police lañ lay yóbbu ñu vérifier yow yaay kan loo fiy ak yooyu en général mooy loolu mais mais daal ambiance bi ambiance c'est ambiance saine la franchement. ndoxum taw mi itam da leen di sonal bu baax a baax ay jamono itam ndox mi da leen daan fekk si ba fi nga xamante ni foofu la ñu daal di dëkk li ko waral mooy ñoom daanaka ci ab pant la ñu daal di féete ndox mi day wàcc di leen fekk si foofu ci biir loolee waraloon nag tax mu daal di leen sonaloon ba ab ndaw sax daal ci génnoon àdduna loolee ginnaaw bi nga xamante ni nag ndox mi fekkoon na ko foofee ca biir dëkkuwaay ba ca loolee la ñu daal di mobiliser wu askan wa nga xamante ni ñoo ñoo fa yeewoo rawatina ndaw ña nga xamante ni ñoo fa daal di nekk ci ndimbalu mairie bu Dakar Plateau ñu daal di fay def akum barrage boo xamante ni nag jamono ji moo nekk di daal di téye ndox mi ba dara sonalatu leen. fi ñu jógee noonu foofu mooy ñaa cokkeer am déet suñu dëkkandoo lañ ndox mi fa la doon jóge di ñëw mais ñun ñoo ko fàtt pour ndox bi bu ñëwee mu wiiru dugg 100 mètres bi génn dem. ñoo ko mobilisé waxtaan ak Alioune def dara te jaaroo fi nga war a jaar bu ëllëgee luñ la daan lu ne yaa teg parce que fii daa am kuñ fi teg mooy monsieur le maire am déet waaw mu ngi ciy jàpp ndax tey yii ni gisuñu woon suuf dañ fi doon gis moo ñu defal pabe ba xale yi du si mën a petit cas am déet am na suñuy mag yu fay liggéey am na suñuy fereel yu liggéey mairie samay mag ñu ngi fa samay nijaay ngi fa di liggéey kon am na lu muy def nit bu la na ak moom muy def dara te doo teg sa tànk ne dëgg la loolu naa fekk la doxewuma noonu du dëgg. ndax fii ndewet su ñëwoon da ngay sonn waaye tey yàlla dogal na ba tey ndewet su ñëwee fii yëpp day set wicc ndax moo ko pavé soo wëree koñ bi yëpp koñ bi yëpp am na pavé kon nga xam ne monsieur le jàmbaar la Alioune Ndoye chaque du fi géej Alioune Dakar Plateau moom du fi moom waaw waaw Alioune Ndoye jàmbaar la liggéeykat la xam na lu muy liggéey te lépp lu muy liggéey rek da koy teg ci yoon man plâtrier laa nag ànduma ak moom man ouvrier laa fo plâtre plâtre laay def waaw ci bâtiment yi laa nekk kon tu ma gisee loo xam ne soppeeku na sama quartier damay wax dëgg su soppeekuwul loon tam damay ne Alioune Ndoye liggéeyul dara waaye wax dëgg yàlla liggéeyal na Dakar Plateau loo xam ne mën nga ko gis ndax Dakar Plateau tam rëyul rëy rëyaay boobu xoolee Dakar Plateau diggante Cap Manuel la ba Malick si waaw dem côté pompier ay kaay finding ay feteer ba waaw kon Dakar Plateau rëyul noonu waaye nag ñun ñoo aaye ndax ñoo nekk diggu Ndakaaru loolee sax daal di nay waral ki nga xamante ne nag jamono ji moo fi maire di Alioune Ndoye moom itam daal dinay nay dexoon akum tànkum ne meeku dugg ci biir gox bi seet askan wi nga xamante ni ñoo fi nekkoon dal di leen di jàppale ci jàppale boobu bokk na ci uh, pavage bi nga xamante ni daal di na koy def ci biir dëkkuwaay bi ndax ay jamono uh, fi yëpp suuf la woon. ñoom Alioune Ndoye dañ fiy ñëw def visite fii yëpp ñoom ñoo ko def pavé ñoom ñoo pavé fii yëpp def fii yëpp nee nañu ñun lu ñu soxla ñu wax ñu. ay euh, nu mu tudd sanitaire yi ay sanitaire fii ci biir fii amul woon ay sanitaire gars yi defal ñu ay sanitaire pour population bi ak yooyu genre yooyu bon jàkk bi fii tabax nañ ko avec l'aide de Alioune Ndoye ak yooyu ak yeneen autorités yi ñu ne neen comme yéen da ngeen bëgg a liggéey ñun bu ñu gisee ne am na loo xam ne bu ko def fii c'est positif ñun dañ leen di jàppale l'essentiel bëgguñu fi ay affaire comme li ma la wax nii ak yooyu dénoncer leen ko ñun on vient on fait on fait le nécessaire fii bu fi amee dara rek dañuy dem ko police commissariat. ndax fii nawet su ñëwoon da ngay sonn waaye tey yàlla dogal na ba tey nawet su ñëwee fii yëpp day set wicc ndax moo ko pavé soo wëree koñ bi yëpp koñ bi yëpp am na pavé kon nga xam ne monsieur le maire jàmbaar la Alioune Ndoye chaque du fi géej Alioune Dakar Plateau moom. du bu loolu weesoo itam askan wi nga xamante ni nag ñooy yeewoo fii ci diwaanu rëbës ñoom itam jamono ji lépp li ñu daal di sàkku rek mooy ñu daal di leen di bàyyi xel bu baax a baax li jëm ci seen ak wàllum dundin waaye itam ci ni ñuy gën a taaralee fi nga xamante ni foofu lañuy ñuy daal di yeewoo ba ñoom itam ñu gën a mën a gis seen bopp ci réewum Sénégal